الحب لما لنجوم عزيز فكل من جاي الله فلا تكن إلى نفسي بارككم مجيبني ما أبوك يا الله واجعل لساني وقلبي ذاكرك معا إن الممات معالما الله

رضي الله وكل سيري يسيل ما دفنوا جسمي فزرت عيب ثم الله لا تنم ما ما خيرا وهمي بذكر كل ما أرسل يا الله ولجني وجميع المسلمين معا والجوار التي عامل الله واغفر لنا ولنا واستر لنا وبعافنا ولي الله ألا تجاوز يا الرحمن فما سواك عنك البر يا الله في بسط ما خبير زلزلا ومن قلوب الوقوف النجي الله لا تدبرا بما ليس بغادرة ولا تخيب يا بك الله وعصنا ما من مالك وسلما اقتلته من جميع الخلق يا الله من كان يرسل سائلا إبراهيم ويهلك كفل ويزول من يخشاك في الله محمد مسكين خيار خائدنا لجنة الخلد يوم ينزل الله عليه سل وسلم دائما أبدا ومن غرور يوم الدين الله dem leen bésub sëriñ مختار Makhtar bésub sëriñ الله awma bis sëñ Maxtaar amul bis Seex Awa Balla bis njaboot gépp démb ak tey jóguñu fi donte ne gis nañu taxawaay bi nga xamante ne bii taxawe nañ ko ci wàccaay wi ak yooyu waaye teewu démb ak tey yëpp ñu ngi fi baagante sëriñ Sidi mii démb guddee na fi lool teel xëy si subaak léegi mi ngi fi ànd ak sëriñ Moustapha ak njaboot gi ak sëriñ Lamine Mbacke ak sëñ maam Thierno mii nga xam ne mooy meeru dëkk bi di Daaru Manaan di doomi sëriñ maam Thierno ànd ko ak mboolem njabootu sëriñ Cheikh Awa Balla gépp ndax képp koo xam ne satunu sëriñ Cheikh Awa Balla tàmbalee ci sëriñ Sidi mi mag ci sët yi ak sëriñ Khalilou Rahman mii ak sëñ Moustapha ba ci Baye Cheikh Awa Ballam sëñ Modou Mahfous ba ci sëriñ Sidi Mbackeem sëñ Modou Makhtar ak njaboot gi sëñ bàyyi sëñ Modou Mahfous ñoom ak ñëpp ñoom ñëpp ñëw nañu ànd ak nekk ci ginnaaw sëriñ Sidi mii nga xam ne ni ko sëriñ bi waxe woon démb jiitul sarak yëpp topp sa gannaaw noonu la ko defe ànd ko ak njaboot gépp kon dañuy njëkkante ak waxtu wi nag ginnaaw kàddu yooyu yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ maam Thierno Khary mu dalal gan ñi bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xatimihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu ñëpp nuyoo bu ànd ak yar ak teggin muy nuyoo islaam te mooy ñaanal ñun ñëpp suñu borom def jàmm ak barke ak yërmandeem yàlla na ko yàlla def kàddu yi du gudd day loo xam ne ndigal la rek ndax maire bi ñuy wax ndigal moo ñu ko jox kon luñ ci defit ci ndigal rek ndigal moo ñu jëfloo loolu kon li jiitu ci suñuy kàddu mooy dalal mboolem ki fi teew mboolem képp ku fi teew ca ñi jiitu ca ñooña mooy ki nga xam ne moo fi teewal Cheikh Mouhamadul Muntaxal Basiir yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko àggale ay yéeneem te nu bokk ca ñay jëf ca la muy jëf barke borom Tuubaa di nuyu tamit bu baax ki fi teewal sëriñ Abbas di sëriñ Basiru ñu ngi koy ziar bu baax mooy itam ñaan gi nu ñaanal sëriñ Muntaxa ñu ngi koy ñaanal sëriñ Abbas di ko ñaanal ki yàlla def tey mu toog ci jataay bi sëñ Seexu Balla bii di alhaji maam Thierno Mbacke yàlla na fi yalla yagal te weral ko barke Serigne Touba diko ñaanal Cheikh al Makhtar mi nga xamne mo wote bis bi tay diko wote lu way juroom wa mo tam yàlla na ko fi yalla yàlla na fi yalla yagal ya, te weral ko te it lepp luñ fi ñaanal way juroom wa yalla nako ko yàlla nangu te ko te bol ko mbolam julit ya nek barke barkeb khadim di nuyu mbolam ay rakam yu bokkal serigne Seex Balla yep di dalal ñepp jamu di wax ci turu commune bi te bu ñu waxee turu commune bi mooy turu askan bi di dalal état bi nga xam ne son excellence monsieur Macky Sall def na délégation bu mag yónni ko yónni leen fi te ka ca bopp di le ministre Abdou Ndene Sall ànd ko mboolem ñi mu àndal ñu tudd ci rek ngeen baal ma sous-préfet Darou Moussi bi muy Mamadou yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di dalal jàmm ak mboolem taalibe yi. di ñaan kenn ku nekk sa tànk yiw sa maanaam sa tànk ñëw ak sa tànk dellu yàlla lépp nekk yiw di ko yóbbante ay nuyoo tamit ci président Macky Sall di ko ko yóbbante ay nuyoo ak i cant ndax ñun kët képp ku ñu jàppal suñu kilifa yi rek jàppal ñu seeni soxla ittewoo seen i mbir dañ lay daal di amelu cant dañ dañ lay daal di bàyyi xel te lii bokk na ci yi nga xam ne ci sunu bis yi ñu itteel la ndax ki koy def mooy jëwriñu Serigne Saxaw Balla di sëriñ Mouhamadou Max di sëriñ Mouhamadou Maxtaar ki muy defal bis bi mooy sëriñub alaaji maam Thierno di sëriñu Moudou sëriñ Moudou sëriñ Moudou Maxtaar ak rakkam kon di sëriñub dëkk bi ak ak njaboot gépp kon ku fonk bisam ku ko jàppale ci ku nekk taalibe yi ñu ngi lay bàyyi xel te te di la fàttaliku bu baax a baax boo demee nga nuyul ñu ko te santal ñu ko bu baax ci ci ni mu taxawe suñu kilifa yii di la ci yóbbante lu gàtt rek ginnaaw nuyoo yi ak cant yi ci loo xam ne barki démb bi mu fi ñëwee wax nañ ko la ca ëpp waaye dafa am lu nu fàtte te loolu ci lu ci lu ñu gënoon a ñor la bokk muy ndax doléance yi commune bi am moom yëpp wax nañ ko ko te eh, lam ñu ca wax gëm nañ ko jàpp nañ ko ndax lam ci jot a def waaye nag boo demee nag ñu ko leeral la ne fii di commune bu Daaru Manaan dey nawet moom ren jii yàlla dogal na amu fi nit ñi soxla nañ ku leen dimbale jur gi soxla nañ ku leen dimbale te tiit nañ ci dañ ko cee yaakaar ginnaaw yàlla nañ ci taxaw ndax dara amu fi tool yu ci bare bari day nanu ko deqee noonu nañ ko duggalee ci seen biir yi nekk kon nag loolu ñu ngi la koy fàttali muy message boo xam ne maanaam bu ñu ñor la bu ñor askan bi la te ñun dañ fee nekk lu ñu xam ne ittewul ne askan wi rek ñu fas yéene taxaw ecca loolu ndax loolu rek moo ñu teg kon nga santal ñu ko te gërëm te gërëmul ñu ko sëriñ Sidim Alaaji Maam Cerno daf maa waxoon ne naa waxaale ci turu sët yi sëriñ sëriñ Seex Ba lépp ndax ñu ñëpp benn lan ñun sët yi suñ kàddu lu gàtt la ñun ñëpp doon def benn say topp suñuy kilifa topp suñuy wayjur kenn ku ne kalamag nga topp ko kenn ku ne ka nga yow ngay maanaam maanaam ngay am ci moom yërmande. auzu billaahi min seytaan rajiim bismillaahi rahmaani rahiim bokku jullit yi bokku taalibe yi ñu ngi leen di ñuy kenn ku nekk ci ak santam ci ndigalu sëñ Modou Mokhtar sunu sëriñ ci ndigalu sëñ Maam Thierno sëriñu di leen dalal jàmm. di tàmbalee nuyoo bi ci monsieur le maire mi fi jóge léegi di wax di ko sant di sant mbooleem autorité locale yi di wax ci baatu sëñ Modou Xuma mi nga xam ne mooy suñu magum taalibe di nu di sant mbooleem taalibe yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli jonte bi sallallahu taala alayhi wa noo ngi sant Serigne Touba di sant sëñ Mountakha mi ko fi nekkal noo ngi sant Cheikh Ibrahima di sant sëñ Abbas mi ko fi nekkal te sëñ Bassirou Abdou Khoudoss doon porte parole te mat ko sëkk yàlla na ko yàlla yàggal te yóbbu waaye noo ngi sant sëñ maam Thierno mi nga xam ne mooy xalifab sëñ Cheikh Balla di sëriñu sëñ Mour Muxtaar di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko te wéral ko noo ngi sant suñ sëriñ sëñ Mour Muxtaar muy jëwriñu sëñ maam Thierno noo ngi wax ci turu taalibe yi di soññ suñu bopp di leen soññ di leen sant ca la nu weesu di leen soññ ci lii jëm taalibe yi jàmbaar lañu lépp lu sëñ bi mas a santaane lañ ca man def nañ ko lañ ci mënut jéem nañu ko fu ñu leen mat a woo wuy nañu lu ñu leen mat a laaj joxe nañu lu ñu leen mat a liggéeyloo liggéey nañ waaye wuy si luñu kenn joxe luñ kenn jëfu luñ kenn seen bopp dong luñ ko jëfal kon nan jëm kanam ta xam ne yoonu yoonu jëf la ku la mënta tax jëf mu laa tax a fayu dara ku la mënta tee jëf mu laa tee fayu dara nanu xam nag doon doon nan doon doon bëgg nan bëgg doon ay jullit yu nangu tudd jullit bu ñu doonee ak jullit ba nangu tudd jullit ñu doon ay talibé Serigne Touba ci biir ñu toll doon talibé Serigne Touba nag Cheikh Ibrahima di suñu bunt nan xool ni Cheikh Ibrahima toll woon ci yoon bi to toll seet ni si Cheikh Ibrahima toll woon ci yoon ni ko yàlla toll noonu waaye na xam ne talibé yi daal yu góor yi ak yu jigéen ñi ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi ñu ne ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew ñi ci def seen loxo ak ñi ci yéenoo def seen loxo ñi def déplacement bi ak ñi koy def ñëpp sëñ Moxtaar sant leen gërëm na leen ñu ngi ñaan daje bi yàlla bu doon su mujj daje yàlla yàlla dafa sutura nu tënku ci ndigal ndax suñu Cheikh Obal dafa ne nit ki li bëgg ci àddina ci nangoo liggéey bañ a yàq rek ko mën a amee nit ki li bëgg ci alaxira nangoo jaamu yàlla ragal yàlla rek moo koy te jaami jaami yàlla ku ko bëgg danga nga jaamu yàlla ab jullit de jaamu yàlla jaami yàlla ku ko bëgg da nga jaamu yàlla yàlla yàlla saxal ñu dégg ndigal ndax dégg ndigal leeru fajar la loo gën dégg ndigal gën a jëm kanam mu gën a leer ñàkk dégg ndigal lëndëm ak timit la loo ci gën a xuus mu gën a lëndëm nan góorgóorlu ci liggéey te xam ne liggéeyul kenn suñu bopp lañuy liggéeyal ñu ngi sant sëñ maam mi nga xam ne mooy suñu njëriñ di ñuy liggéeyal ndax maam Thierno ko ànd ak moom faaw nga liggéey te ku liggéey faaw nga fay kon yàlla yàlla yàggal sëñ maam te wéral ko te booleel ko moom yàlla yàlla yàggal sëñ Mourou Xaadim jëriñ ak mboolem njaboot ndax lañ fi Mouhamadou Lamine Baara waxoon ne kër suñu tubaab goo fi dem la fi def waa kër su taalibe ñoo ko loola moo xew daaru mu ci gii moo xaw daaru mu naan moo xaw Tuubaa moo xaw fu nekk kon mu yàlla na yàlla def lu si mu xaati wax santé ak CFA boobu suñu woote nu mën a wujji mën a jëf ñi ngi sant monsieur le maire engagement ba mu jëloon ci CDD bi lam ca man lam ca waxoon def na ko autorité yi seen rafet na lool kii waxal sëriñ bi bu diggee dana ko wax man taalibe yi lañ ma waxoon ñaa naa wax ci seen tur ñi ngi sant taalibe yëpp ak fu ñu ma nekk ci biir réew mi ak bitim réew ba ñu nekk ba ñu nekk Italie te fédération sëñ Cheikh Balla ba fa nekk

wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwaani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyoo bu baax ak ziar di ko tàmbalee ci borom dëkk bi di sëy maam Thierno di ko ziar bu baax di ko nuyu di ko sant teg ci سيد محمد المختار مي خامني مو واتي بس بي نتي ماغال واي جورم كليفام سيد شيخ ابو بالا دا نجي ديلو سي واي ني نوي مبولم اي ركام موم تام دي نيو تام سيد بشير عبد القدوس مي توك دي سونو كليفه ñu ngi koy nuyu di ko siyaar di ko yóbbante am nuyoo ci sëñ Abbas ak sëñ mustafa ak mboolem sunu kilifa ya nekk foofee di nuyu mboolem mbokki taalibe yi fi nekk di nuyu mboolem njaboot gi fi nekk di nuyu itam ki nga xam ne moom la chef de l'État muy Abdou Ndéné mu jóge ci moom moom itam na nga koy nuyu mboolem ñi mu àndal di rafetlu seen teewaay waaye loolu lépp nag ci turu Cheikh Mahamadou Muntaxa mi nga xam ne moo nu fi yebal ci bisub mbokkam mi bisub xaritam bi bisub rakkam ji di sëñ Modou Mokhtar di bisub xaritam di bisub mbokkam waaye di bisub kilifaam itam muy kiñ koy defal di sëñ Cheikh Awa Balla di way juram moo waxoon ne naa ànd ak ñi ma àndal Baye Sangoone Amar mi kenn la ci ñoom Sëriñ Basiru Sula mi kenn la ci ñoom ak mboolem njaboot gi nga xam ne bëggoon na tey ma ànd ak ñoom ñëw fi bu sañoon nii ngeen def lañuy def kenn du fa des waaye xataayu jamono ji ak yaatuwaayu liggéey bi moo waral ña fa nekk rek ñoo mën a ñëw waaye bis bi ñor na ko lool sëñ Muntaxa mi nga xamal sëñ Modou Mokhtar ne ko moom ci boppam na xam ne yitteel na ko am na ci mom mbekté am na ci mom tiant bu baax ndax gis na nim ko jappé gis na fim ko tek gis na fim ko fété ta lolu doonul lo xamna lolu tay la waye demb la won jiitu na jiitu na tey fuuf ndax jamono yi nga xamna ne la sëñ bi ci kër sëñ bashir mu sëñ mohammed mukhtar wala rek gënal yalla boole won ko koy samal bu baax ma koy téye bu baax waye mom momay tam ma koy samal bu baax waxtu wu nekk du jóg ci xelam benn jamono mi ngi koy fàttaliku bu baax a baax a baax bis bi itam di bisam ndax bis bu ñuy defal sëñ Cheikh Awa Balla di ko ci fàttaliku ak a ñaanal bis boobu nee na moom ku ca nekk moom nga ca nekkaloon te yéen cee bokk nekk sax du la ko bàyyee ndax du ko bàyyee kenn ndax sëñ Cheikh Awa Balla kilifaam la way juram la kenn umpulewul diggante sëriñ Cheikh Awa Balla ak sëriñ Bassirou ñoom itam ña ngi ko tegoon rek ci diggante Cheikh Ibra Faati ak sëriñ Touba wet ga Cheikh Ibra Faati féete woon sëriñ Touba di përëgum nday joram di léppam ci taxawaay ci wetam loolee rek moom la njabootu Cheikh Ibra Faati gépp nekk ci wetu njabootu sëriñ Tuubaa loolu moom la Cheikh Awa Balla nekkoon ci wetu sëriñ Basiiru ba ñëpp ràññee ko ku ñu xam la woon seen diggante waaye loolu yéemewul ndax dañoo bokk baay bokk ndey bokk jikko ñu mel noonu nag bokk lu toll noonu nag faaw ñu mën a ànd loolu moo taxoon seen ànd rafet nee na kon ànd boobee ñu ngi koy feddali moom ci boppam di ko sàkku ci sëriñ bi itam ak mboolem njaboot gi ñu feddaliwaat ko te xam ne lépp njëriñ rek la ndax ñoom du ñu def lan lu amul njëriñ mboolem lu ñu nekkoon di ko def ci seen diggante di ko def seen diggante ak sëriñ Tuubaa seen diggante njëriñ rek la buñ ko duñ ca roy ñoom itam njëriñ rek lay doon ci ñoom kon muy moom ci boppam ak bis bi nga xam ne moom la woote lépp mu ngi koy dollee fedd di ko sant te di ko ci gërëm te di ko rafetlu bu baax a baax te xam ne itam mel na ne tey jëmmam moo fi nekk bu fi jëmmam nekku rek bu sañoon mboolem njaboot bi tey fi lañu nekk waaye nag xëy na la fa xatti njaboot yi ci xatti jamono ji loolu moo tax mu demee nii kon nag mi ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa li nga xam ne moom la bëgg ci bis bi sun borom jottali ko ci roxu Sëriñ Cheikh Awa Balla yàlla def ko lam ci bëgg mu am ko njaboot gi nga xam ne ñoo fi nekk itam sun borom gën leen fee bàyyi te gën leen fee gën leen fee sàmm gën leen defar mucc gu wér ak kaaraange njaboot bi itam gën a àndandoo gën a bàyyi seen bopp ak seen bi waaye gën a ànd ànd bi nga xam ne moo war ci diggante ñaari bopp nee loolu mi ngi koy feddali te mi ngi koy sàkku ci ay rakam mi ngi koy sàkku ci mboolem njaboot bi di ko sàkku ci mboolem taalibe yi kon daal loolu ci gàttal mën naa wax ne loolu mu sëñ bi waxoon dinañ ko wax xëy na la waxoon ëpp na loolu waaye loolu lañ ci man a feeñal moom lañ ci mën a teewal ñu ngi sant ñëpp di jéggalu ñëpp. sax ci jigéen ñëpp waaye xam naa jigéen ñi moom am na ci ñoo xam ne mënuñoo nett li li sëriñ ko sa doon wax te indal muslimina wal muslimaat aaya bi li ko tax a wàcc mooy jigéen ñi dañoo demoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa di jàmbat ne ko waaw lu tax bu santaane yi ñëwee dañ ko yemale ci góor ñi rek bàyyinu motax tax bi wàcc ne gor ak jigen ñoy yam ci liñu leen sant ak liñu leen téré ma ngi nuyu di indi nuyu bu bàyyi ko ci mi nga modi Cheikh Ibrahim borom di ñaan yalla suñu borom moom mi nu may nu téwé ko mu may nu nu wat ko ay déwén yu bare bare di nuyu serigne kosso mi nga baatu ko sa dafa siiw rek waaye Ibrahim la maam Cerno borom Daaru Muxti muy màndarga moo xam ne lu am solo la ci jataay bi teewal sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikhul Xadim te ki ñu ko duppee ñu duppee ko boroom Daaru Muxti borom pàkk bi sunu boroom du jum mukk lu mu def noonu la Sering bi ñuy fedd li ne njabootu borom daru muti gep li nga xamne mom lañu dundal di ko moy santane borom daru muti ba modi di ku fi nekkal serigne Touba def leen ko muy serum serigne Touba serigne sering moy serum serigne Touba diko fedd li ci touru serigne Abbas ak mbollem borom daru muti ak fuñ mëna aju donte penc mi ci darul manan ak darul manan gele ci Touba wala ci biir dëkkoom bu mag bi di Daaru Muxti wala Daaru Kos ak yeneen sanc yi ci des yépp fu ñu fi nekk lépp njabootug borom Daaru Muxti sëriñ mun mooy sëriñ sëriñ Touba. di nuyu Abdou Ndéné Sall mi nga xam ne moo jiite ñi nga xam ne ñoom la ki yàlla teg ci bopp réew mi muy président Macky Sall yabal te moom it muy koo xam ne ku ñu xam la ku ñu yàgg jëflanteel te rafet ni ñuy jëflante suñu diggante ak moom. man duma faral di wax ci nit ki loo xam ne day mel ne ragalante ginnaaw la dégg noddu daanu nga wax ko barab la ci aljanna boo xam sunu borom dina la ko defal moo tax ñu koy yeesal ci nit ñi ñu xamee ko noonu may nuyu Abdou Ndéné ak mboolem ñi mu àndal di sant di gërëm ci teewaay bi di nuyu mboolem mbokk yi fi ñuy sëriñ maam Cerno bi nga xam ne mooy sëriñ xaw Awa la te doon koo xam ne ku rafetalug mbokk la ku ñeme njaboot la te toogul rek ba wuutu sëñ xaw Awa la doon ko melowoo ku ko xam ku nekk ci loolu nga ko mos a xam mu am gërëmul way juram loolu mën nañ koo seede di ko sedd sëriñ Mouhamadou Mokhtar bi nga xam ne noonu la demee ci way juróom noonu la demee ci sëriñ maam Thierno yal na yàlla yàggal jataay yi njaboot gi ni ñu àndee wane na ko yal na ko yàlla gën a dëgëral te lépp di dellu ci liggéeyub sëriñ Cheikh Awa mi nga xam ne lépp la ci borom Daaru Muuti te wane melokaan woo xam ne kenn ku ci nekk boo sañoon am ku ni mel loolee ñu koy ñaanal lepp luñ fi ñaan rek sunu borom jotale ko ci waye serigne Cheikh sidou mukhtar mi nga xamne ne mooy turandoom ba te yoonu murid di doomi serigne Mouhamadou Lamine bara momi tam sunu borom jotale ko ci ñaan yi ndax amna yep cib ci wet yépp yalla nako yalla nangu di seede serigne Mouhamadou mukhtar serigne bi serigne Abbas mi sante di gërëm ci taxaway yi nga xamne njabootug sëriñ Cheikh Awa Balla ñi ngi koy taxawee ci njiitul sëriñ maam Thierno te sëriñ Mamadou Muxtaar doon kenn ci sëriñ maam Thierno taxawaay boo xam ne taxawaay jëwriñ ju mat sëkk la te ñaan ñi nekk ci ginnaawam ñëpp it nangul nañ ko loolu loolu mooy tax kon faw sëriñ bi sëriñ Abbas day bëgg képp koo xam ne kii yaa ngi aju ci borom daaru muuti lépp lu ñu lay defal lu nekk ñu xam ne moom gëm na ne li sëriñ ko sa wax léegi ci mbooleem luy muridiya serigne Muntaxa loolu la gëm serigne Abbas loolu la gëm ci kër borom daru Muti lepp luñ fi def lu nekk japp nañ ne lu fa def mom nga defal té it moy li am nak kon suñu kilifa yooyu yalla leen yalla deugëral té katanal leen ba nga xamné ñun ñi top ci seen ginaaw waxtu wu nekk danañu xamné euh, li moy royu kay bi nu nangu ci roy té nangu ci téggu way xam kay bi té do ci roy it loolu daanaka dul am njariñ mi ngi melni nit ki aw penku nga aw sowu rek bu ci bu sobut suñu borom lool lool seenu dajé du gaaw ci musal seeni ndigal mooy ndigali sëriñ Touba ndigali sëriñ Touba mooy digley sunu borom terey sëriñ Touba mooy terey yonante bi ak alquranul karim kon topp ci sëriñ bi te wasila mun ta ñàkk jàpp naa ne képp koo xam ne kii gëm nga ne ëllëg sunu borom dina la taxawal laaj la xam nga de wasila mun ta ñàkk loolu nag moo nu booleeg sëriñ Touba te sunu ànd ci ak sëriñ Touba mooy képp ko dox sa digganteeg Serigne Touba ngay wéy ci ndigalam di daw di daw tereem ndax ëllëg suñu borom bu nu bu nu dajalee du wax lu weesu jaam bi loo waxoon sa moromum jaam bi rek nga ne ko digaloon naa ko lii terewoon naa ko lii mu nekkoon kon bàyyi li ci des ma seet koog moom loolu rek foofu rek la ñuy mujj. jërëjëf Serigne Bassirou Mbacké. jiital sëñ Koso sëñ Mountakha nga xam ni moo fi représenté xalif bi moo fi représenté ki nga xam ni moo nekk ci mooy suñu sëñ Touba.

bu Cheikh Awa Balla Mbacké yi fi teew di nuyu njabootu Sëriñ touba yi fi teew ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñun kat ay talibé lañu ay taalibe toppe dégg ndigal daal di wax donc li fi euh, sëñ Bass wax léegi nii dégg nañ ko bu baax te dinañ ci dox aussi ñu ñëwoon fii ci màggal gi mu nekk 40e édition bu màggal bi nga xam ni day fàttaliku bi euh, suñu suñu suñu suñu maam suñu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacké jóge fi daal di wàcc liggéey jóge fi ma ñëw nag ànd ak délégation bu mag gouverne kii président la république le président Macky Sall di sama kilifa yónni ma fi ma ñëwal ko fi teewal ko comme ni ma koy teewale ci ci màggal yépp ma ànd ak gouverneur ànd ak autorité yi nga xam ni

président de la république nag yoonu murit moom gis ngeen bi fi ñëwee ñëwoon na ci Ila Touba ñëwaat na fi boppam def fi tournée bi nga xam ni def na presque vingt quatre heures fii gane si woon maam Thierno ah donc vraiment xam na li ko fi war te lépp bi nga koy def bi mu paree Ila Touba nga xam ni bi mu paree Ila Touba pare def ni ko daf ko déjee sëñ Touba ba pare wax yeneen yi nga xam ni mi ngi ko war a def muy route bi nga xam ne day contourner Touba nga xam ni. boo ñëwee bu Touba dafa am léegi benn cercle bu mag bu koy wër bi nga xam ni que Touba day am léegi ay bunt bunt yi bunt fu nekk bu dugg dem li Linguère dem ci yeneen yëpp donc mu am donc yooyu yëpp fas yéene na ko def ak li nga xam ne war na ko liggéey ci ndox mi pour mu ñëw Touba jële ko ci Lac de Guiers projet yooyu yëpp ak assainissement bi ak yooyu yëpp projet yooyu yëpp nal na ko ñu mu wax mu waxoon mu waxoon bu ma ñëwee moo wax ngeen ñaanal ko ndax mbëbët yooyu yëpp mu yan ko di ko jëmale ci njabootu sëñ tubaa di ko jëmale ci taalibe sëñ tubaa yëpp yàlla may ko mu eggale ko ak jàmm ak salaam man nag mooy sama kilifa te sama kilifa lu tax ma kontaan sama kilifa damaa dégg sëñ tu fi toogal sëñ tubaa sëñ mu taxaa ni dénk na ko sëñ tubaa man de sëñ tubaa bu mu ne woon dénk naa la sëñ tubaa du ma def dara damay tëdd sama kër wut sama piliaan daal tëdd nelaw nga xam ne ku ñu dénk sëñ Touba loo yóotu di nga ko am loo kii di nga ko am parce que sëñ Touba rek ñu may wax man toujours sëñ Touba moo bari njariñ loo ko dénk fës yéene ko def ko sa xol ñaan ko sëñ Touba dina ñëw ci yow vraiment yoon bu amul nag tànk ginnaaw tànk kanam yëpp luñ la ci sas rek mën def bañ a mën def wut rek defal ko li nga xam ni que dina la fay fii dina la fay fee koo xam nag dina la fay fii fii la fay fee lu mu jar rek war na ko jar te te président Macky Sall ni mu xamee noonu la taxawee ci yoonu sëñ Touba noonu la taxawee ci coono yi nga xam ni que wax nañ ko fii léegi nii vivre de soudure yi muy ndimbal yi nga xam ne war nañ ko joxe ci ci ci jiw yi war nañ ko joxe ci gerte yi nga xam ni bay nañ ko pour ñu jënd ko ak jàmm ak salaam ak ndimbal yi nga xam ni. war nañ ko defaat ci suñu mbokk yi nga xam ni que du dañoo dañoo bañ a liggéey dañoo liggéey xëy na liggéey bi antuwul donc ñu war a ànd ak ñoom parce que nit danga koy dooleel boo ko dooleelee après mu am doole bi nga xam ne ñun ñëpp dañ ci bénéficié wu donc vraiment may gërëm ñëpp di ñaan ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ fi tey yal na leen euh, barke sëñ Tuubaa wuyu bu ñu fi indee feebar yal na ko yàlla wér ak jàmm bu ñu fi indee soxla yal na ko yàlla faj liggéey sëñ Touba bi nga xam ne moom la woote ku nekk li nga ci mën yàlla na la yàlla na ko yàlla dubleel lan na la ko yàlla dubleel ba nga xam ne di nga ci def loo xam ne que vraiment si peu di nga ko récupérer waat parce que sëñ Touba rek moo mën a fay loo ko defal mu fay la ko may ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp di wax suñu sëriñ bi nga xam ni tey moo woote bis bi yàlla na ko yàlla wéral parce que man tey bi ma ko gisee kontaan naa trop parce que ñëwoon naa fi. jëwoon naa fi cérémonie bi kéro ci kër gi fële lañ ko défé parce que mu xawona mu xawona fébar mais légui ni vraiment yalla may ndako tan bu muy wax ak yooyu yëpp yàlla na sax yalla nako fi yalla yàlla wat ci kanamu njabot bi bàyyi fi vraiment suñu sëriñ yi yëpp té li ñuy ñaan ci dëkk bi li ñuy ñaanal Sénégal yëpp yalla vraiment nungu ko mu baax ci ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp يال نف يال ديف جام اليكسيون يي جيم يال نين في دوغال جام جيني تيك جام بسم الله الرحمن الرحيم وعلى اله وصحبه وحدمه وامته وسلم غناو بونو سانتي سونو بوروم جولي سي نانتبي صلى الله عليه وسلم ييسال سونو نجيبال تي شيخ احمد بامبا خادم الرسول feddali ko ci boroom daarul Muxti mii sunu bunt ci moom ñu ngi nuyu ñu fi daje ñëpp nuyoo bi gën a sell ci diggante jullit ak morom muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di ubbee sunu nuyoo ñaanal a cheikh muntaxal bachir xalifatul am di tarixatil muridiya sunu borom yàggal ko fi te ko wér doon lañuy jàllee ñaanal ko sëriñ Abbas Mbàkke mi fi nekkal Cheikh Ibrahim maam Thierno Ibrahim daamal daarul ma waxti di ko ñaanal itam sëriñ Moustapha Absa Mbacké mi nga xamante ni mooy xalifa di kilifa mboolem ko bokk kër maam di ko ñaanal itam sunu sëriñ di sunu kilifa di xalifa dëkk bi di borom dëkk bi di alxaaji maam na Mbàkke mi fi nekkal sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke di ko ñaanal itam kii sunu bunt ci sëriñ Touba di Cheikh Mouhamadul Mokhtar di ko ñaanal it moom it sunu ko fi te may ko wér ci jotaay bi ki fi nekkal sëriñ Touba teewal fi Cheikh Sëriñ Mountakha di sëriñ maam Thierno Mbacke ñu gën ko xam ci sëriñ Koso Muntaxa di nuyu itam bu baax sëriñ basir Abdul khodous mi nga xamantene mo fi nekkal sëriñ Abbas Mbacke di porte parole am te matu ko sak xamna man mom duma mat séré ci mom ndax buma séré rek dana neex neexé na do ma séré ci wayjuro mbaa nit seede ci soppeem di nuyu itam ki nga xamante ni mooy sunu kilifa ñun ñëpp muy sëriñ Sidi Mbacke ibnu Alhaji Maam Cerno Mbacke di nuyu kii sunu bunt ci moom nga xam ne sëriñ Sidi mooy kilifa mboolem ku sëtu ci sëriñ Cheikh Awa Balla waaye ñun ñi jabootoo ci Cheikh Mouhamadul Mokhtar ñun ñëpp sëriñ Xalil mooy sunu kilifa kon mooy sunu bunt ci moom te kàddu yi buñ ko yëkkatee di wax ci turu sëriñ bi ci ndigalam la bàyyi ko ndax sëriñ bi moom lay jox ndigal waaye ñun moom moo nuy jox ndigal kon nag ñu ngi koy nuyu mboolem ak ñi nga xamante ni moom la bokkal sëriñ bi ci góor ak ci jigéen di ci jiital su jigéen ñi soxna Maam Faati Mbàkke bi suñu kilifa ñun ñëpp ah yooyu nag yaakaar naa dana matale ci mbokk yi mu des taalibe yi bu ñu waxee alhaaji Moodu Xumma mi nga xamante ni nii moo jiite mboolem taalibe yi aju kër Sëriñ Cheikh Awa Balla teg ci alhaaji Sumbul Silla mi nga xamante ne moo jiite mboolem taalibe yi aju kër Cheikh Mouhamadul Moxtaar nuyoo bi dana sax ba àgg ci taalibe yëpp. di ci le président de la république son excellence monsieur Macky Sall le ministre Abdou nous Sall ñu di ko bu baax jox jox Nous bi nga bu président Macky Sall Nous sommes nous boobu dañuy jël teg ci Nous sommes ngi jël monsieur le ministre di yow ak mboolem délégation bi nga àndal muy bu ma le gouverneur de la région de Louga ainsi que le préfet du département de Kébémer et le sous-préfet de Darul Mokhti ak mboolem délégation bi nu àndal yépp di ko ubbee itam ci ki nga xamante ni mooy nun nooy moom muy le premier magistrat de la ville de Darou Manane di monsieur le maire Serigne Mame Thierno Mbacke kon bu loolu jàllee dañuy jottali rekk kàddu yu sëriñ bi muy kàddu yu cant ak ngërëm cant gi ak ngërëm li itam taalibe jiitu ci ndax ku nekk xam na ni ab sëriñ ku mën a doon nu mën a mel ay taalibe ñoo di taaram bu nu demee ci njanaaw yi dafa am picc mu tudd jàmb jur mhm. am na picc mu tudd ak baax mhm. am na yeneeni picc njanaaw wala rabu àll bu ko doomu aadama di yittewoo ndaw la tax waaye tey jii picc yëpp jàmb jóobe ci gën a cher mm-hmm. prix te dara waralu ko lu may ay donko yu rafet te sëriñ ay taalibi ñoo di donko kon nu sëriñ bi mel rek taalibe yi la tey jii nii bu nu xoolee ci diggante pouvoir spirituel ak pouvoir temporel dinañ xam njariñu taalibi ciy sëriñ ndax léeg-léeg nga gis chef d'état wala gouvernement wuti benn sëriñ bàyyi fa magam wala bàyyi fa xalifa bàyyi bàyyi fa xalifa maam mbooloo mu bari ma sëriñ yor a tax waaye wuti wuñ fa yàlla loolu nag boo amee dafay firndeel rekk ne saa su nekk ab sëriñ ay taalibe rekk ñoo di sagam ñooy léppam kon sëriñ bi cant gi ngërëm li mi ngi ciy jiital taalibe yi ndax fu mu àgg ak fu ñu ko tegal nun ko def taalibe sëriñ Tuubaa yi ni ñu ko def rek ñun taalibe itam danaa ci ñëw ci kanam ci sunu digganteeg sëriñ bi ci kaw loolu sëriñ bi mi ngi jiital ci cant li ci taalibe yi alaaji sumbul silla mi nga xamante ne mooy jëriñ nga xam ne démb rek taxaw na fii seere ko daane mën na maa nangu ci yoonu murid ku ma ëppale ay jëwriñ mbaa ku ma mag jëwriñ waaye ku ma gën jëwriñ am am kon nag ñu ngi lay sant ci turu sëñ bi di la sant ñun itam ci sunu turu bopp bu loolu jàllee itam ñuy sant itam autorité ak mbokk yi mbokk yi bu nu ko waxee suñuy kilifa la ñuy doon muy mbokki sëriñ bi di ko tàmbalee ci sëriñ Basiru Abdul Xudus mi nga xamante ni bañ tàmbalee ca CRD bis bi ba tey ji toogul tàyyiwul noppaluwul bàyyiwul te noonu lañ ko ànd ak mbokk yëpp ba ñi nga xamante ñooy ndaw lu sëriñ Muntaxa mi fi nekkal sëriñ Tuubaa alxaaji maam Cerno nag mii sëriñ Cheikh Awa tey nga xamante ni mooy waajuru sëriñ bi mooy magam mooy kilifaam mooy mbokkam mooy xaritam mention spéciale lañ koy beral démb dikkal na boppam ba ci kër sëriñ bi te bu ko neexoon mën na ko cee bañ a fekk ndax bu dikkee doon Cheikh Awa bu toogoon ni du ko teree doon Cheikh Awa te du teree sëñ Maxtaar teg ko fa ko teg jàppe ko na mu ko war a jàppe te dara du yàqu kon leneen lu mu ci def rek ak mbaaxam la ko wooye fa te noonu nii la ko sëriñ bi waxee doonul lu mu ko soxal kon ñu ngi koy beral cant googu ak ngërëm yi bu weesoo loolu nag ñuy beral cant ak ngërëm son excellence le président Macky Sall ñun dëgg la naam ne duñ ay jaay ay intellectuel Sénégal nag à fois boo dee wax waxul wàllu intellectuel dañuy foog ne képp ku dul bachelor wala képp koo xamante ne amul master wala licence mbaa lu ni mel du intellectuel alors que loolu képp koo xamante ni nekk nga ci jotaay bi wàcc alxuraan mbaa nga bind kaamil wala nga jàng naaw mbaa fànni xam-xam yëpp jàppal lépp intellectuel nga ndax xam-xam boobu bu jóge ci yàlla la te xam-xamu tubaab bi ci ay doomu aadama képp lu jóge te xam-xamu bi yàlla suñu borom mënta ma bu doomu aadama bu ñu waxee loolu nag mooy li ñuy doon doon doon doon ay intellectuel xam-xam boobu ak xel ma dañ koo jël jaaye ko jëndee ko ak taalibe ndax sëriñ Tuubaa moo nu gënoon lu dul moom ban ko jaayee jëndee ko ak taalibe itam danoo ñëw lem sunuy wóom dëgg la naam ne li lem sunu woom yi lemul sunu xel yi waaye sëriñ Tuubaa amatum xel ndax xel day calculer te ngëm-ngëm amul calcul parce que fekk doomu aadama boo xamante ne nit la ci yow nit la ne yow moor la day xiif ngay xiif muy mar ngay mar muy lekk ngay lekk muy naan ngay naan muy amee aajo nga di ko am te boo noppi boo ñëwee ci moom boppam gënal la sa bopp boo yoree sa alal jox ko ko mu gën a mu gën ko koy yéene ci sa jëmmi bopp loolu xel nangu amutug logique moo tax xol moo koy def muy pas-pas sunu xol yooyu nag moom lañ doxalante sunu digganteeg Serigne Touba ba tax ne ñii di suñuy kilifa di suñuy bunt ci Serigne Touba nu leen waaye def ñu def ko ni président Macky Sall bu amoon. programme bi gën a baax ci àddina te tegul fenn sunu kilifa yi du tax nu teg ko fenn bu yoroon tey jii programme bi yées ci àddina te jël ci sunu kilifa yi teg leen ca kaw ñu jël ko teg ca kaw ndax amuñu ko lu ñi amuñu ko dul donte li ma ko waxee léegi on a des esprits sains dans des corps comme le disait Hitler an gesunder Geist and einen gesunder Körper waaye du tax mukk ñu jël ko teg ko ci kaw sunu lépp dañ koy jël jëndee koog taalibi ku ne xam na nag ne sunu wayjur yi fi nekk ay gaynde lan ay jàmbaar lan ndax lu ci waay gàtt gàtt ay at lu ci waay gàtt gàtt xam-xam fekkee nga as tuuti seenug démb ba nuy toll ci seenug waxambaane toll ci seen digg doole doomi gaynde gaynde nag mënta jurum khan, te doomi gaynde bu mënta fàdd mënta ngari war a mën a xonqali bët kon loolu ñu ngi leen koy loo xel ci ngeen xam ne actuellement dafa am benn tendance boo xamante ni nit ñaa ngi koy jéem a doxalante entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel te du dem muy le mot jeune marabout à chaque fois bu ñuy wax dañ naan les jeunes marabouts les petits marabouts les nangam nangam te grand marabout boo fi gis ci jeune marabout lay jaar jeune ak grand ay at kepp la te yàlla suñu borom li muy def defu ko ci ay at ndax bu ko ci doon def garaatub rasulullah yi du ko jox sunu mam Adam. ces jeunes marabouts ño nek sur le terrain di jokkook taalibe yi ñooy tudd doom yi takki soxna yi ñooy jullee néew et cetera ku leen jéem a tàggaleeg di jéem ñagasal seen diggante moo la leen xëy d'autant plus que on est dans un pays où 70 de la population est représentée par la jeunesse comme jeune marabout yi am loolu nag ñu ngi koy dénkaane bu baax monsieur le ministre di la feddali sunu cant ak sunu ngërëm ak sunu jàpp ci yéen ak ci président Macky sans raison sans condition bet benn condition bi képp la fi mu tegal nun sunu kilifa yi nu ko fa gën a teg te yokk ko li fekk nu ko fay teg ñu koy jàpp sunu kilifa yi keneen ku ñëw teg leen fi suuf ñu ne la fi ñu na yekk bu naqari ndax amoon na lu dul noonu sëñ tubaa nu gënal sunu démb gënal na sunu tey gënal na sunu ëllëg te moo ko gën sëriñ tubaa production locale la réew mii ñu nekk sëñ tubaa ngay ñëw ñu ne la kër gii la dëkkoon néeg bii moo fi nekkoon mbub mii la daan sol fii la daan jullee fii lañ ko denc ay doomam a ngi nii 2004 lañ mujjee gis doomam wala 2005 ay sëtam a ngi moo jur bàyyi kii moo jur diw moo jur diw dara gënu koo leer production locale États-Unis d'Amérique sax li tax ñu gëna a développé ci adina consommation locale la ñuy consommé réew moo fi gis mu gëna tardé la ñuy consommer day joggé bitim réew Sëñ Touba production locale li fekk Sénégal ñu ngi jël Sëriñ Touba diko ko ci kanam Sénégal di dem waye buñ ko bëggé jël jël li nga xamanté ni moy production étrangère diko tek ci kaw li nga xamanté moy suñu production locale du dem buñ démé ci suñu école yi tay ay Pierre Ronsard lañ ñuy jangal ay Victor Hugo ak yenen ak yenen ay yo xamanteni yobbu wuñu fenn ba adino sosok legi, ba amé indépendance ak legi, mom la ñuy jangal suñu xalé ta te lu avancer té jangum Serigne Touba ngi fi njàngum Alhaji malik ngi fi jangum man ñu bax ñangi fi nan ko insérer ci éducation nationale di sant bu baax di gërëm mboolem ñi nga xamanteni taxaw nañ ci bis bi kon ñu nangu ñaan Serigne bassir Mbacké mu Cheikh Khoudous ñaan fu way nekk nan nangu ñaan tamay kilifa yi ñu jall ma ne. ne ko may